bokki jullit yi bokk yi ma bokkal lislaam ginnaaw bi ma sant yàlla julli ci ab yonantam Mustafa alayhi salaatu wasalaam maa ngi leen di nuyu di leen ñaanal di sàkk ci yéen ñaan di gisal ci ñëw bi alxalifatul aam li taifatil muridiya Cheikh Muntaqa xafisa ulla awaraa di wax suñ boroom ni ko alhamdulillahi lasi bi nicmatihi tatimu saalihaat bokki jullit yi sant naa leen dayab sant boo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem cantuk xol ak cantuk làmmiñ di jiital ci cant googu Cheikh Mountakha Mbacké ndax bi yàlla dogalee mbir mi xew bépp taxawaay bu ko war waxuma sax bu ko war waru ko da ko def ci wuutu gu mu wuutu sëñ Tuubaa donn gu mu donn sëñ Tuubaa firi bayitu sëñ Tuubaa wa jëfam jii mu jëf ci xew-xew bi tegtale na ko ndax ba sëñ Tuubaa ne waj al bi jaa ayaati riayatal quraani sil ayaati yow suñ borom nang ma def man sëñ Tuubaa ma nekk gardien wu alquran diirug sama dund yow sëñ Tuubaa yow suñ borom man sëñ Tuubaa nang ma def ma nekk sàmmub alquran diirug sama dund kon bu yàlla dogalee mbir mii am te mooy ay pël yoo xam ne dañoo tëdd ba guddi ñu ñëw ci sama géttu xar goo xam ne xar yi li tax mu wut ko mooy lu may dundale daara ji yéen ñëpp xam ngeen ni dama yor daara joo xam ni dañ fay jàngale alquran fi sabilillahi taala te bëgguma dongay di yalwaani tax ma wut barabu liggéeyukaay boo xam ni poulailler lañ koy wax ma di fa yar ay xar ak ay koppin la cay bàyyi ko ma di ko delloo ci dundub daara ji loolu la ay pël tëdd ba guddi ñu ñëw di ko dajji ma yëg leen topp leen ñu daw ba dugg ci ak kër asamaan set ma xëy dem ci këru pël yooyee di waxtaan ak ñoom ni leen ni yéen de da ngeen di ay dëkkandoo te yonent sallallahu alayhi wa daa waxoon ni dëkkandoo jàmm ca gën ba taxoon mu ni aljaar xabla daar tànnal dëkkandoo bala ngaa wut kër ma bëggoon comme yéen munu leen a ñàkk bañ a jël fi jàmbur waaw xanaa boog ngeen sàmm ak dëkkandoo ba baal ma fi bokk alali daara ji li nga xam ni moom day dundal alxuraan magum pël maa fa fekk xanaa bi ma ñëwee damaa laajte boroom kër gi ñu won ma ko magum pël maa fa fekk daf ne ma ikkam yow day ko baax nga ndax jamono bu nekk koñ bi yaa koy dundal ak alxuraan ah bi loolu amee la yenn ci ay doomam génn ñi yor ay jaasi ñi yor yeneen i ngànnaay wutal si ma fekk maa ngi ànd ak ñeenti donga ma ne donga yooyu daw leen ca oto ba ñu daw ca oto ba sëriñ Moustapha Ndoye di sama xarit boo xam ni lislaama nu boole mu sopp ma dayob sopp ba moom sama aajo dong lay bañ a digg lu dul ni dana ci def lu mu mën bi ma ñëwee ma di ko jàmbat ni ko man day pël yi dañ ma sonal ci xar yi ci daara ji ma bëggoon a wut jumtukaay bu may fegee sama bopp mu ne man de amoon naa fi boo xam ne am nay këyit fetal googu ngeen di dégg am nay këyit ma ne nag damaa bëgg nga abal ma ko bu guddee ma man cee alerter ndax ñu bàyyi fi alal yi bi ma ko joxee ma teg ko ci oto bi bi ma ñëwee ci daara ji wàccewuma ko ci oto bi laa ko bàyyi bi yàlla dogalee ma dem doon waxtaan ak ñoom ñoom ñu réagir noone ci la arrière ba agsi ci oto bi jël fetal gi ni leen taxaw leen mbaa ma def ko ci yéen ginnaaw yàlla te boo fetal gi dara néew ci fetalu kese la waaye ginnaaw yàlla wallahi bur woon a fetal ga na ngi ni dëjël ngeen ma bu yàgg fetal gaama ma aar bur woon fetal gi kon na ngi ni dëjël ngeen ma ndax ñaari bal yiñ ma joxoon sax yóbbaale wu ma ko woon fi laa ko fàtte waaye fital gi moom mi ngi woon ci oto bi bi loolu amee ma ñibbi si waat ci kër gi woo commanda doon ko yëgal xew-xew bi bu gendarmerie mu xamal ma ni ma lii may wax ni commanda mën na koo seede mu xamal ma ni ma wax dëgg yàlla foofu ñun yilifatuñu ko commissaire u ndaamaatu moo ko yilif booba timis a ngi waaj jot ma ne bu ma jullee timis ba noppi kon dem commissaire u ndaamaatu far yàlla dogal fi ma doon jullee timis ci jumaa ji bi ma sëlmalee rek lan ay ndaw ñëw ni commissaire u ndaamaatu mooy ñëw ndeke dama faa jóge rek ñoom ñu jiitu ji ma def seeni pelante xam ngeen ni ñoom dañoo yor association bu mag ci addina bi yoo xam ne ñoo leen di défendre ñuy def ay cotisation di teg di dajale yooyu yëpp xamees na ko ndax ñun informé wu nañ bu baax ci anam googu yi ci association yi addina bi ni ñuy doxee waaye loolu lépp daal jërul guddal ndax dossier baa ngi ci kanamu yoon waaye li ma bëgg a wax mooy santaat yàlla santaat Cheikh Ahmadou Bamba sama yaakaari tey ak sama yaakaari ëllëg ñi ma xam ci sama ndaw ba tey xam nañ ni génn ma sëñ Tuubaa sama dara mësta génn sëñ Tuubaa ay nit gaaral nañ ma billet ba tey ni dañoo bëgg nga tukki booba sax sëmpaguma daara ji ma ni leen man réew mu sëñ Tuubaa nekkul mënuma faa am juróom benn weer yu mat yàlla man nattoo loolu ci sama bëgg sëñ Tuubaa réew mu sëñ bëgguma faa am juróom weer yu mat loolu ñi ma miin ci sama ndaw ñëpp xam nañ ko ni bu fekkoonte ni wut alal ak bëgg a tukki dong la aka ma ko jekk woon aka ma am nijaay yu ko jekku aka am ay bokk yu ko jekku waaye aka am mbooloo mu ko jekku waaye man sëñ Tuubaa laa tànn dëkk ak moom bu ma bokkut ak moom benn néegit naa bokk ak moom genn kër su ma ko mënut naa bokk ak moom benn dëkk bu ma ko mënul naa bokk ak moom am réew bi mbir mii xewee ca dëgg-dëgg ci la nag sëñ Tuubaa jóg taxaw ndax sëñ Muntaxaa mi ko fi nekkal taxawaay bi mu ci taxaw moo tax ma dem ba mënatumaa téye saa bopp daa mujj may wax ni bokk yi ngir yàlla lii bu ma xamoon ni bu ma bu lii dalee ci sama kaw njabootu sëñ Tuubaa gi lii lañ ci daj ci man billaahi bàyyi woon pëli rey ma ngeen ñaanal ma ci lu matu fukki minute ak juróom suul matu ñibbi ma ko gënal ndax njabootu sëñ Tuubaa gi démb daanaka yënduwuñ ci jàmm ndax sama njëmm sii raabita bi muy raabitatul quraaniya te seex sëriñ xaadi jaxate jiite ko ñoom tamit démb gis ngeen leen ci buntu police ba lañ yenn ajjuma ñu war ko julli ji daanaka jaral na leen yenn fa ca naaj wa lii laa yaakaaroon ni sama jëmm ji jëralu ko jaami yàlla yi jëralu ko jullit ñi xoolal jullit ñi ba bitim réew fu nekk di yëngu daa mujj ki nga xam ne moo ma daa ñëw ni ma waa sëñ bi yaay kan ma ne ko man maay taalibe bu ñuy wax Moustapha mbay saam di dongas ndaara suy kër këri ci yoonu yàlla mu ne ma man damaa jaaxle ci yow biir réew bitim réew kilifa gu yàlla sàkk intervention fekk na ma fii te kenn ku ne xam na ni man damay wax ni ku nekkul ci ak njub ku nekkul ci ak njub la yonent waxoon sa mbokk buñ ko tooñee dimbale ko ñu ne ko waaw kiñ tooñ day xam nañ niñ koy dimbalee waaye ki tooñ nag waaye rawatina kon nag lu mel nii bi amee mboolem sëriñ daara yi ba bàyyiwuma kenn réaction fu ne jóge na ñoom ñëpp ñëpp maa ngi leen di sant amul benn sëriñ daara bu des ñoom imaam Mor Mbaye ak Cheikh Amadou Rafa yi démb bi mu ma wooyee moom da koo yéex a yëg bi ñu ma bàyyee la koy soog a yëg moom. moom daa mel ni ku teqali ko sagoom démb la ma woo dama agsi ci kër gi rek mu woo may santaat bu baax Cheikh Abo Mbacke moom ma dul faadal xam ngeen moom sama diggante moom ba may gone ba tey moom rek laa xam ma keneen moom laay wax ni sama aaju mësta dugg ab noppam te fa jiwut moom Cheikh Abo démb bi ñu ma bàyyee ma agsi ci daara ji toogaguma délégation bu jógee ci suñ Muntaxa ñëw suñ xaa di jaxata jiite ko ak mboolem lenn ci ay bànqaas yi nga xam ne ñu ngi fii ci Touba te jiite rabita bi kenn ku ni bànqaas ba nga jiite ñooñu fiñ toog di wax ak man ni ma suñ Muntaxa dafa bëgg a xam fu mbir mi toll buñ jógee fii dem leeralal ko ko ma wax leen fi mbir mi toll bi ñuy waxtaan maak ak ñoom noppeeguma la Seex Abo Mbàkke woote ci sama téléphone ni ma Moustapha maa ngi lay xamal ni loo nekk maa nga ca ba jeex takk foo nekk maa nga fa ba jeex takk loolu na nga ko xam yal na ma leen yàlla fayal yal na ma leen yàlla maa ngi ñaan sama borom mu bàyyi leen fi wéral leen guddal seenu fan jëpp moon mukk ni sama jëmm ju ñàkk solo ji jaral na leen lii xalaatuma ko woon fii may waxee ak yéen maa ngi nii ci biir gétt xar yi fii laay defee audio bii may waxee ak saa bu ma xëyee maa koy saytul sama bopp maay suqi maay xont maay ratu gone yi ne ci njàng mi ma nekk xaadimal quraan ngir ñoom alal ji fi bàyyi ko soxloo ma ci dàll soxloo ma ci mbubb lépp ma di ko delloo ci alquraan ay nit ñëw bëgg koo jël may jëflanteeg ñoom ñu ni ma amuloo droit dem seen kër set dëgg la waaye jàmm mu fa yóbbu woon ndax ay dëkkandoo lañ ndax defuñu ko ren dong bii mooy ñetteelu yoon yoon wañ ko jëkkee def damaa dem ba ca seen kër yee waxtaan ak ñoom ñu ni ma gone yi dootuñu fa ñëw ren ji ñu ñëwaat jàmm joojee dong laa bëggoon a doxaat far yàlla dogal lii am ci mënoon na maa toog fii ci sama daara ji ku ñëw ma jëflante koog yow ndax yonantu sallallahu alayhi wa sallam benn saxaabi yi moo ko laaj ni ko waaw yow ki yàlla yónni bu ma doon dox ba dajeeg nit mu laaj ma sama alal nag yonant bi ne ko nga lànk ba tëdd ca naaj wa mu ne ko waaw su ma lànkee mu song ma xeex yonant bi ne ko nga xeex ak moom mu ne ko su ma xeex moom mu far rey ma yonant bi ne ko nga sëhit dem àjjana mu ne waa léegi su ma ko faree rey nag mu ne mu dee dem sawara sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne man maata min duni maalihi fa huwa sahid képp ku ñu rey saalal sa alal défendre sa alal bañ rey la mu ne mu ne dangaa dangaa dee danga dee ci jihaad sallallahu alayhi wa moo ko wax loolu la kilifa yi xam kon sant naa leen gërëm naa leen suñ xabaanam suñ fàllu mi nga xam ni moo jiite njàng mi yónni na fa doomam yónni fa imaam bu sant buso nga xam ni kon yoonu mbàkke yi ñëpp a daje ndax mbàkke bi la kon loolu tamit rëy na fi man lool ñu ngi leen di sant di sant suñ xabaan di sant association yi nga xam ni kenn ku nekk ma yëg ak lu ma yëgut waaye rawatina raabita bii sëñ xaadi jaxate na nga ma santal raabita bi santal ma sëriñ daara yi wallahi sama xol egg na ci foo xam ni daa mujjoon yàgg bëccëg bi yëpp samay rangooñ di tuuru ma ne bu ma xamee woon ni njabootu sëñ Touba gi bu ma lii dalee nii laa leen di sonale nii lañ ciy sonne nii la ci taalibe sëñ Touba yi di sonne joxoon pëli sama bakkan ñu ñaanal ma mu jeex ndax loolu du mat fanweeri minute wala gën nga yàgg waxtu mu jeex waaye bisu lëm ñu yend ko ci kër kër sant nañ bu baax baax maa ngi ñaan yàlla leen yàlla fay yal na ma yàlla wuutu ci yéen fay leen naka njëkk yàgg na wax ni taalibe sëñ Tuubaa yal na ma leen yàlla fayal ci ni ñu mel ci man te yàlla dong tax waaye rawatina nag ci bis bii jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ñi nga xam ne ñooy wàllu police ñoom it sant naa leen gërëm leen ndax ñoom ñëpp daal kenn ku ci ni ba nga ma gisee da mel ni ku soo fi dem awa xanaa kii yow kay jox ma war ma ju mat sëkk ki yore wan enquête bi la ma fii ma toog du ma jeng lu toll ni tarfatal ay ni yaa ngi yëg ni yaag Cheikh Ahmadou Rafaay sama connexion ci yéen laa koy jeexal mu ne ma yow bu ma xamoon ni fii nga dëkk ba tey siyaare si naa la nii la ma ko waxee ñoom ñëpp ñu jox ma war ma ju mat kon jërë ngeen jëf sant naa leen gërëm leen muy police ba muy commissaire ba muy ñëfa ñëpp wax dëgg yàlla lépp luy xeetu war ma jox nañ ma ko fa kon ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf jasaakumullahu xayra jasaayihi jasaakumullahu xayra jasaayihi baat boobu su ma amoon lu ko ëpp danaa leen ko wax ndax Cheikh Ahmadou Bamba nit xëy na ñëw nuyu si ko mu rocc mburu jox ko kooku ni ko jasaakallaahu xayra jasaayi suñ tubaa dafa mel ni koy daw rocciwaat weneen mburu jox ko mu ne ko jasaakallaahu xayra jasaayi suñ tubaa mel naat ni koy daw rocciwaat weneen mburu jox ko mu ne ko waaye Mbàkke doy na jërëjëf mu ne ko mënoo woon di wax li nga doon wax rek xanaa xamu ne man jasaakallaahu xayra jasaayi dong moo ma bàyyi addina kon nag maa ngi leen di wax ni jasaakallaahu xayra jasaayi yàlla na ma leen yàlla ak Cheikh Ahmadou Bamba mi ma amul lu dul moom fayal lii may wax daa kuy daanu jël du waxiku fanatisme donte fanatisme sax lu baax la ndax ñëpp fanatisme que ñii dañoo fanatisme ci football ñii fanatisme ci leneen man sama cofeel sama lépp dama ko joyal jëmee ko ci Ahmad Bamba da yàgg na maa wax ni duma koy parparloo duma koy par parparloo waaye ku far laa kan laa faral sëriñ bi ñu wax sëñ Touba waaye lu ma xam ci beneen nitu yàlla bu baax bu ne nag danaa ko wax parparloowu ma waaye sëñ Touba laa faral nag ndax far mënta ñàkk yàlla mi bind jaam ñi sax daa far ak ku ñuy wax Muhammad ibnu Abdullah alayhi salaatu wasalaam loolu toujours ngeen dégg ko ci samay waxtaan wallahi xam naa ne ojo bi dana gudd waaye xol bu sedd guy guy guy guy Cheikh Muntaxa yal na la yàlla sàmm Cheikh Muntaxa yal na la yàlla aar ndax man de ba ma doon wax ci samay waxtaan ci xew-xew yi fi amoon te ay nit di jóg di dal ci kaw seex Cheikh Muntaxa saa bu ne ma di ko wax ak a waxaat di défendre Cheikh Mountakha ba yegg ci ni leen waxuma nit waxuma nit waaye malaaka yi sax dëkk naa leen ku ci masa a dog tànkub Cheikh Mountakha fu neexul yàlla kaay wax ku amut ba mu juddoo ba tey bi yàlla mosu koo dog fu ko neexul yàlla xam na ko ba mujj am ñu may bind di ma xasaka saaga naan xanaa yow yaay avocat mun taxaar waaye tey dey loolee ñu doon wax ndekete suñ suñ Mountakha mooy sama avocat tey kon jërëjëfati jërëjëfati Mbàkke jërëjëf Cheikh Abou jërëjëf Cheikh Abo jërëjëf Cheikh Abo moom damay wax ni ci weenam laa nàmpe ba may gone ba tey taxawu na ma fu ne moom Cheikh Abo ba may gone ba tey waaye biig firndelaat na ko ci kanamu suñ xaadi jaxate ñoom la woote téléphone ñoom doy nañ ci seede ni ma Moustapha maa ngi lay xamal ni loo nekk maa nga ci loo nekk maa nga ci te ñii la ma ko yàgg waxe nag dama ne sama soxla musta dugg ci nopp Cheikh Abo Tafa ju daara ji bi ma koy sanc dama cey def ñaari mbir yoo xam ne lu ci ne tan de caa am damaa dem ci Cheikh Abo ni ko man day Mbàkke damay bëgg sañ ci daara joo xam ni dama faa bëgg di jàngale alquran fi sabilillahi ndax damaa gis li ëpp ci doom aadama yi seen loxo jotul seen gannaaw te gis naa ne loxo yi way néew doo kii doomi way néew doole yi mënatuñoo jàng alquran léegi ndax seeni i bàyyi amuñu luñ faye man ma bëgg a daara joo xam ne dama yanu lu ma attan di fa jàngale alquran fi sabilillahi waaye Mbàkke dama bëgg nga ñaanal ma am teraanga ñoo xam ne day tax dongo yi duñ yalwaani mu ni ma demal ni nga ko bëggee la ko yàlla ak Cheikh Modou Fadal di defee wallahi keroog lii la ma wax ma jóge fa dem ci sëñ Thierno Diouf Lambaye sëñ Thierno Diouf Lambaye xaritub sama waajur la bi ma séenee daan waaye waaye sama doom ñëw na sama waajur da ko daan gane ji mas na koo gane ci dëkkam bu ñu wax Belel mu toggal ko ceebu ganaar maa ngi koy fàttali keroog maa yóbbu sama waajur ci watiir bi ñuy añ ñetti ganaara ne ci kaw ndab li ñun suñu waajur dañoo yaroon yar boo xam ne boo bokkee mag doo laal ndawal bi ñoom ñaar ñuy añ di waxtaane sëñ Tuubaa ba fàtte ma man dëggaluñ ma ci ndawal gi ba yàgg sëñ Ceerno mel ni xelam da cay dem mu binni binni waay waay waay waay mbay yaaram sa yar bi ëpp na xoolal xale bi bañ sukkee ba léegi laalul ñam wi waay waay mbay lii ëpp na nag daal ni su xeet pooju ganaar ni nganam nganam ni ma ŋaal ma nga mu ni ma ëddiyey sëñ Tuubaa dañuy nganam nganam tëf ni ca tëf ni ma ëddiyey sëñ Tuubaa ma seeñu booba mu dellat ni su xeet beneen pooj ni nganam nganam ni xanaa ku xëyal sëñ Tuubaa war a gontul Cheikh Ibra wallahi wa rabbul kaaba ni ca tëf ni ma am bi may sañ ci daara ji ma fekk ko ci këram gële ca Castor mu ne waaye sama doom dikk na ma ne man de li ma tax a ñëw bëgguma saafara bëgguma ndomba gu ñuy takk mu ree ba tëdd ci lal bi noonu waaw kon mbay yaaram loo bëgg nag man yooyu dong laa am di man man damay bind rek bind rek mbaa takk man yooyu dong laa am di ma ne ko ah man de juuf li ma bëgg am nga ko mu ne ma lu mu doon ma ne ko damay bëgg a sañ ci daara joo xam ni dama faa bëgg a jàngal doomi julli ñi alxuraan fi sabilillaahi